ñoo gën a lam jul beere ñooro rey makki doom ji jàll fuuta ñoo del roy nag almaami Abdu Buukar mbokk yi ànd ak ñun ci seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV dellusiwaat nañu am mbégte lool teew fii di addu ngeen di teewlu ni ñu ko doore woon ci xaaj bu njëkk ba xaajum ñaareel ba ñetteelu xaaj ba ba bi ci mujjoon ajuma ji jàll di ñeenteelu xaaj ba tey kon dañu ñëw ngir fas yéene indi juróomeelu xaaj wala cinquième épisode bi jëm ci jëmu ji sell jooju di maam Cheikh Anta borom gaawaan kon dañuy ziyaare sëriñ Mor Mbakke mi toog ab jataayam ak njabootu maam Cheikh Anta gépp muy doom yi sët yi cheikh yi ak talibe yëpp di ziyaare sëriñ Abo May moom sëriñ Modou Mamoun gannaaw ba nu ziyaare ab xalifaam di sëriñ Jiili mi toog toogaayu sëriñ Modou Mamoun di ziyaare maam Cheikh Anta mi toog toogaayu sëriñ Modou Roqee Mbakke waaye di ziyaare imaamu jumaay Daaru Salaam di sëriñ Cheikh Abdou mom Serigne Amdi May ak njabotu Serigne Amdi May gep di ziyara soxna May daru mom Serigne Amdi May waye di ziyara soxna Mominatu Mbakke bintu Cheikh Abdul Qadir ak njabot ge yëpp di ziyaara itam nak sunu xarit sunu Serigne sunu wëllëre suñu Amidou Mbacké ci Paris ak daayira maam Cheikh Anta bi nekk Paris yëpp di jaare Serigne Thierno Sall bu restaurant Maam Jaara ak soxna am soxna Ndey Jang nekk ca dix-huitième ci Paris ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara mbokk yi ñëwoon nañu ak yéen ci aju maam Cheikh Anta Mbacké XM Marseille ak journal bobu di won le petit Marseille, la mu ci bindol ñewon nañu ba ci bis bi nga xamanteni champion bi nga xamanteni moy bato bi len doon yobbu journaliste bi wax nañu ni bato bobé ay pèlerin ay ajkat yu bokul ay diiné ñu ci nekkon ba ñew ak nun xam le ni mam Cheikh Anta ak ñi mu àndaloon bato boobee moo leen yóbbu te mu am ay personnalités yu ca nekkoon yoo xamante ni bokk na ca ancien ministre des affaires étrangères bu Belgique bokki nag may jégalu ci kàddu gi am soj moo waral kàddu gi soppeeku kon mam Cheikh Anta bi muy aji ak exem Marseille du le petit Marseille rek mo ci bindone waye amna na journal buñ doon wax le petit provincial journal am bi gennon ci fukki fan ak juroom ñet ci wéru mars 1928 te ñaareelu xëdd bo muy page 2 ba. nous nga en route pour la Mecque wax avons article buni, Amna, bateau vapeur bu ñuy wax émérite 2 te compagnie Noir, paquet courrier de l'Afrique occidentale Excellent. Dembiti Marseille ak téeméeri tukkikat ak ñeent ñoo nekkoon ci bato boobu nga xamante ni waxoon naa leen ci xaaj be jàll ni mu ngi déparé woon Rufisque maam Cheikh bi muy aji bato bi booba port Rufisque wute nag léegi foofu la bato ba di déparé mu ni nag téeméeri ujaaj yooyu ci nekk astafurlah téeméeri tukkikat yooyu ci nekk ak juróom-ñeent muy cent neuf passagers mu ni nag bokk na ca ñoom le Cheikh Anta muy maam Cheikh Anta mbakke mi nga xamante ni dafa ànd ak fukki jullit wala fukki groupe fukki jullit lañu yoo xamante ni ñi ngi jëm ci benn ci ponki lislaam te mooy aji Makka gi nga xamante ni bii at mu jot dafay am benn yoon mu ni nag maam Cheikh Anta moom la Cheikh Anta ak ñi mu àndal jaar gi ñu jaar Marseille profité nañu ci visiter dëkk bii di Marseille waaye nee na fi nga xamante ni bii moom la ci gën a visiter mooy fi ñu doon wooyee promenade de la corniche nee nañu daal délégation boobu nga xamante ni moo ànd ak maam Cheikh Anta maanaam nemmeeku nañu dëkku Marseille waaye fañ ca gën a nemmeeku mooy fañ doon wooyee promenade de la corniche ba tey ñaar fukki fan ci wéru mars ba nga xamanteni ni suba lañ fay wara bayiko Marseille journal bobu di Le Petit Marseille, momit titré wat na wax ni le grand marabout Cheikh Anta part aujourd'hui pour la Mecque kon ñaar fukki fan ci wéru mars 1928 journal boobu ci xëtu ñaareel ba ñu mottale ko ci xësu juróom-ñetteel ba muy le petit wax na ni sëriñ bu mag boobu dimam maam Cheikh Anta tey lay bàyyi ko Marseille ngir dem Makka mu ni nag group boobu nga xamante ni ay ajkat lañu di ay julit yu bayiko senegal te and ak serigne bu mag bobu di cheikh anta mbacke ma ngi jéggulu ci sallawlu gi mam cheikh anta la ci jublu damay jang rek niñ ko bindé waye ma ngi jéggulu ci sallawlu gi ñu ni le grand marabout cheikh anta mom mo and ak ajkat yoyu ngir ñu jëm makka mu ne nag danañu bàyyi ko tey jii marseille ci gaal gu ñuy wax champollion mu ni nag groupe pèlerin boobu maanaam ajkat yooyu bàyyi ko sénégal te ànd ak maam cheikh anta nee na ñii lañu mu Mbaké Busso, Bousso muy Serigne Mbakke Bousso ba léegi rek ma ngi euh, jéggalu ci waxin wi ñom bu dee seen ñooñ dañuy wax monsieur wala son excellence waye gis nga fi ñi ngi wax ni délégation bi ñuy lim Mbakke Bousso muy Serigne Mbakke Bousso néna du personnage savant di nit ku bari bari ku bari xam-xam pieux di nit ku diinewu et poète en arabe itam di woykatu arabe mu ni moom cousin maam Cheikh Anta la cousin mooy doomu nijaay wala doomu bàjjan nee gannaaw serigne Mbacke Bousso moomu bokk na ci délégation bi fallilu Mbacke muy serigne Fallou fils du grand marabout Ahmadou Bamba fondateur de la secte mouride Muni délégation bi kon serigne fallilu Mbacke di doomi serigne Touba mi sos tarikha bi di tarixa murid dégg nga booba ñoom bi secte lañ ko daan qualifier temu mu sorek li wala fi wax ni ñak xam la waral bari na waaye dégg nga ñu ni bokku na ci serigne fallilu mbàkke di doomi cheikh ahmadou bamba mi nga xamanteni bi mo sos secte bobu manam muy tarixa yoonu murit mu ni ba te itam bokk na ci ñooñu Moulay Bousso muy sëñ Moulay nee na fils de Mbacke Mbacke Bousso nee na Moulay Bousso doomi Serigne Mbacke Bousso la nee na étudiant en arabe étudiant arab la nee na moom bokk na ci Aji, gi nee na bokk na ci tam serigne Takko Mbakke Alaaji Takko mbake mom mam Cheikh Anta bokku na ci delegation bi nee na bokk na ci tam Amadou Ndiaye Diop nee na fondé de pouvoir la bok mam Cheikh Anta nee na sëñ Amadou Ndiaye Diop mbokk na ci ñi dem Makka ci délégation bi mom nak profession moy fondé de pouvoir bob mam Cheikh Anta nee na délégation bi itam Ibrahima Dia muy sëñ Ibrahima Dia bokk na ci nee di disciple manam di talibé mam Cheikh Anta mu nak nag Ibrahima Dia moom grand cultivateur d'arachide la moom profession métier mooy nee na béykat bu mag a mag la moom Serigne Ibrahima Dia mu ngi ci délégation bi journal bi ba tey nee na Mayoro Fall Alaaji Mayoro Fall secrétaire du marabout moom nee na secrétaire u maam Cheikh Anta la Mohamed beaucoup délégation bi ñuy Je nit maître boulanger la madame mm, boulanger euh, borom four la maître boulanger la beaucoup na ci délégation bi je qui bi bi ci délégation bi moy ku wax Souleymane Paye Souleymane Paye defena ni Pay mom defe mom profession manam métier moy expéditionnaire au gouvernement général de Dakar kon mom mel na li wax tay euh, secrétaire au pèlerinage à la euh, à la Mecque mom expéditionnaire la kon moom mi ngi woon ci délégation bi waaye nguuru gouvernement bi nekk Dakar mën nañoo wax ni ñoom ñoom la teewal ci délégation bi walla nguur gi ñoo ko boole ci délégation maam Cheikh Anta boobu nga xamante ni lim nañu ko muy fukki nit ñoo xamante ni bii euh, ñoo an juróom-ñeent ak maam Cheikh Anta ngir defi farata jooju nga xamante ni mooy euh, aji màkka foofu itam am na précision bu fi bëgg indi ndax am na ñoo xamante ni délégation bi dañoo wax ni sëriñ Mor Fati Touré di jarbaatu maam Cheikh Anta ci la bokkoon waaye li nga xamante ni bii moo officiel te ñoom tubaab yi ñu bind ko mooy fukki nit yi ñoo ñoo bàyyi ko Sénégal ngir dem aji Makka te àndoon ak mam Cheikh Anta Serigne Mor Fati Touré ca déwén sa vingt 1929 moom ci la dem Makka ba wax nañu ni am na ay bagage yoo xamante ni nijaayam di maam Cheikh Anta bàyyi woon na ko Makka moom sëñ Mor Fati Touré ca ba muy ba mu ajee moo indaale bagage kon bàyyi nañu Marseille ngir dem Makka ci weeru mars mars mën nañu wax di ca njeexte la wala desoon na fukki fan wala juróom-ñeenti fan mars avril mais juin muy ñeenti weer wuute ak léegi lool ndax journal bi di la Petit Marseillais ma nga nuy xamal dëppug maam Cheikh Anta ak ñi mu andal bayiko ko makka ndax seen journal bi génnoon ci ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru juin 1928 euh, article bi ñu ci indi journal bi mi ngi titré woon wala mi ngi waaw titre article bi mooy retour de la Mecque Cheikh Anta sambark pour le Sénégal maanaam maam Cheikh Anta jóge na Makka war naa bàyyi ko Marseille ngir dellu senegal article ba dafa wax ni weeru mars wi jàll ci lañu wàccoon ci pooru Marseille fukki senegale di ay jullit yoo xamante ni ñi ngi jëmoon Makka ngir defi seni farata muni guru groupe nak nag jite won moy sering buma bu mag bobu di Cheikh Anta mbake di mam Cheikh Anta mi nga xamanteni bi aw turam aku selam aku selam romb na cercle Bawol bi nga xamanteni fa la deuk turu maam Cheikh Anta ak siiwoom ak sellam ak diinewoom nee nañu siiw na ba génn cercle Bawol boobu nga xamante ni bii fala dëkk mu ni nag moom sëriñ bu mag boobu di maam Cheikh Anta bi mu dëppee lu jiitu moom ak euh, ñi mu àndaloon nga xamante ni war nañoo dugg ci gaal gi ñu doon wax toi rek bi war a indi Sénégal waaye mu lu jiitu maam Cheikh Anta di jóge Marseille ñëw na visiter sunu journal bii di le petit wax wax nu itam xalaatam mu ni nag interview boobu ñu ko interviewé secrétaire am bii di Mayoro Fall moo doon tekki wax yi

Alaaji Mayoro bi ñuy tàggoog moom ñaanal nañ ko une une excellente traversée ñaanal nañ ko mu tukki tukki jàmm ba delluwaat ci ak njabootam ñu ni nag moom maam Cheikh mii dey bu delloo Sénégal nu nattable wunu ni dana wax sénégalais yi li mu gis ci réew mi di France waaye rawatina dëkk bi mu jaar di Marseille bu delloo du ñàkk moos li mu fi seetlu mu nettali waa senegal bokk yi interview bi nga xamanteni interview interviewé nañ ko Cheikh bi visiter journal bobu inshallah allah ñu ci ci ci sixième épisode bi top ci bi dal di ci mbirum résidence bi nga defoon nañ ko ko génne ko Sénégal mbokk yi kon ñu di leen ñaax rek ngir ngeen dem abonné ji ci seen chaîne bi di Xam Sam Réew TV di xam le ni abonnement bi duñu ci fay dara dafa bari bokk yooyu dañ koy laaj naa ndax dañuy fay waaye bu fekkee bëgg nga abone boo seetaanee vidéo bi ci YouTube di nga gis fu ñu bind mbind mu xonq euh, bind ca sabone danga nga cay teg sa baaraam mu génne la lu ñuy wax ab cloche mel ni euh, ab jóolóoli yi ñuy takkal fas yi ab wayeng wayeng boobee boo ca tegee sa baaraam rek abone nga video bu ñu dugalati rek di nga ko jot kon mbokk yi seen mbokkum taalibe liggéeyaa ko nu borom daar Muxti Mbay Géey Sil mu àndoon ak yéen ci jëm ju sel ji di mam shahanta anta di len sante di len gërëm te di len ñaanal at bi nu jëm muy juddu yonent yalla yàlla sa di 2020 sunu borom defal nako ko muy atum jàmm atum natange atum xewal kon mag len di sante di leen gërëm jërë ngeen jëf waaye français lan na goru senegal ni ñu dugal ñu dugal senegal ñi génn gàddaay far dem ba faatu ñi joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fam nañu saamu i cere fi soose gabang boole koog baraama siise tala kapoor ba ñi lekke imbulaañse def ko biir nag laaw la ma faraañse ñoo génne lam de julbeere yi ñooro rey makki doom ji jàll fuuta ñoo del roy nag almaami Abdu Bukar